ci biir réew mi ak ca bitim réew ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullah di jiital ci boobu ak euh, ziar bi cheikh mohamadul muntaha mbàkke moom sëriñ basiru xalif général des mourides di ko ñaanal mu gën fee yàgg lool te gën a wér waaye di ko ñaanal ki nga xam ne moom moo di sëriñ ahmadul maxtaar mi nga xam ne mooy euh, kilifay euh, daarul xuddoos di bërëb bi nga xam ne fi lañ nekk tey en direct fii ci euh, Bayti ci euh, bésub altine yemboog fukki fan juróom benn ci muharram atum 1444 ginnaaw gàddaay gi di le 15 août 2022 di plateau bu spécial boo xam ne moom la fa fas yéene ànd ak yéen lépp tàbbi ci wàccaayu màggaluk 20 muharram ñu gën koo miin ci màggaluk Daaru Xuddoos di jotaay boo xam ne dañoo jël benn ponk bu am solo ci yoonu murit ponk bu am solo ci réew mi nga xam ne moom lañu nekk muy Sénégal ñu fas yéene koo waxtaanee ngir mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy teewlu la ci lëntoon gën leen a leer waaye ñi ci xameewul tamit mën cee xamee. ñu am mbégte nag ci plateau bi dalal ci sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguirane di boroom xam-xam goo xam ne ñëpp min nañ ko ci yoon wi ñu fas yéene euh, seq ak moom waxtaan woowu sëriñ Ahmadou ñu ngi lay nuyu di la ziar. auzu billahi min صلى الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديمه زي الردوان والتمكين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجلين دينو يتدين زيار كي جيت الكليفة يونوي شيخ محمد المنتقى نو يسني أحمد المختار يجوري نيكرجي أكم أحفاد شيخ محمد المصايب ñi ñaanal ñëpp yërmande suñu borom ak ñu jëgalam barke jërëjëf euh, sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan ba léegi ci plateau bi amaan nañ fi tamit euh, sëriñ Mbacke loo moom it di borom xam-xam euh, koo xamante ni incha allah moom it dana ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo ci thème bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee sëriñ Mbacke maa ngi lay nuyu baax a baax di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Fallou. aoudu billahi bismillahi alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. xasbi allahu indi ñu ngi tàmbali suñu jotaay ci di leen nuyoo nuyoo lislaam boobu di ci jiital kilifa yi ni ko sëñ Ahmadou waxee di ñaan lii nu dëgmal suñu borom eggalañ ci jàmm te defe ko ni mu ko gërëmee eh, asalaamaaleykum. jërëjëf Serigne Mbacke Lo waaye jërëjëf eh, mbooleem équipe technique bi nga xam ne ñoom lañ àndal ci réalisation plateau bu am solo bi fii ci Darou Khoudoss mbokk yi ki nga xam ne moo sos yoonu murit di Cheikhul Khadim bi fi bàyyeekoo ci atum 1927. bàyyi fi ay naal wala ay projet yoo xamante ni ci ginnaawam war na am koo xam ne da koy taxaw ki nga xam ne moom moo di taawam di Cheikh Mahamadul Moustapha Mbacke yàlla yàlla yokk ay leeram taasu ci barkeem am défi bu mag a mag boo xam ne waroon na cee taxaw ngir taawu li nga xam ne moom moo di yoon wi waaye orienté li nga xam ne moom moo di projet yooyu le ngir lépp mën a yemb loolee nekkoon euh, euh, diggante boo xamante ni xawoon naa jafe ci jamono yooyu ci réew mi wala ci àddina bi taxawal fi liggéey bu ni mel sëriñ Mbacke loo yow la ñuy njëkk a jox kàddu gi mu mel ni sëriñ bi bi mu fi bàyyee ko ni ma ko waxee sànq rek bëri na défi yoo xam ne présenté woon na waaye il fallait que mu am koo xamante ni dina mën relever défi yooyu noonu. noonu xamoon bul Moustapha nga ñëwal ñu ci. Euh, jërëjëf euh, nit nga ko waxee Cheikh Moustapha dafa jiite yoonu murit ci jamono joo xam ne euh, jamono ji ci boppam jafe na ngir ay wàll yu bare bare wàll yooyu itam nag. léeg-léeg di ko fàttalente ci lay gën a wone liggéeyub Cheikh Moustapha waaye ci lay gën a wone itam taxawaayu yoonu murit ci lay gën a wone eh, yarub sëriñ bi akuk defaram eh, sëriñ bi bi mu fi jógee ni nga ko waxee léegi 1927 ci weeri wolof yi xëy na mooy ëpp tuuti ci weeri tubaab bi ndax su dee ci weeri wolof yi téeméer atam ñaar la manqué 1346 la fi jóge woon su dee booba ak léegi kon 98 ans la maanaam juróom-ñeent fukki at ak juróom hmm. su fekkee ne ci weeru tubaab yi moom mu ngi toll ak juróom-ñeent fukki at ak juróom booba ak léegi nuru na lu yàgg tuuti waaye soo gisee jéegu yi fi yoonu murit def yëpp hmm. yëpp ci téeméeri at ci xëy na mouvement boo xam ne day doo ko juddu dëgëragul muy parental da ngay xam ne jéego yu am maanaa la fi def mën nga ne jéego yu mbir sax hmm. la euh, parental euh, seqi loolu nag liko may mom lañu la waxtane tay mhm. liko may moy serigne bi nga xamanteni mom moko moo ko sañ dafa wajal ñi nga xamanteni ñom la andalon mhm. bokku na ci ñooñu Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha bi mu ñëwee 1927 ni nga ko waxe bari na ay simb yo xamne ne mi won ci kanam mhm. waye nak sëriñ bi li muy rëy rëy nak jafé jafe-jafe yi nekkon ci kanam day melni moko gëna ko ndax jamono jooja mu nekkon ak ñamu andalon àndaloon ya ak tam nag li nga xamante ni moom moo gàll woon ci aw loosam bu nekk dafa rëy euh, bu njëkk bi 1927 euh, bi sëñ bi jógee sëñ Ahmad daf koy wax lu bëree bëri waa kër sëñ yi nga xam ne ñooy njabootu boppam muy ay doomam ñi ci ëpp booba ñu ngi toll ci ay tuut tànk ñenn ñi di war a dal jàng ñenn ñi egseeguñ ci dal jàng am na ñoo xam ne ñu ngi jàng te seen jàng eggul mm-hmm. te ku wax loolu wax ay jirim ak ku fi sa waajur jógee rawatina waajur wu toll Cheikh Khadim mm-hmm. ak responsabilité bi nekk ci moom su ko defee wuutu ko foofa ak na mu bëggoon njaboot ga mel na nga taxaw ba nu mel loolu def bu mag a mag la mm-hmm. te am na ci jamono ji da nga koy seet ñoo xam ne ñaare dañ naan kii kat nu mel li ko waral mooy baayam mm-hmm. baayam dafay néewul defi bu njëkk boobu ci la beneen bi tam mooy eh, ñi ummahatul muridin muy waa barsàq ñi te ñoo xam ne sëñ dafa dëkkaale woon ak ñoom ñoo nekkoon ci kër gi ñu am itam wàccuwaay boo xam ne am nañ ko ci yoonu murid yi ndax seen baay ci diine Cheikhul Khadim moom mooy seen euh, euh, mooy seenu sëriñ ak nag na nga xamante ni noonu lañu war a taxaw ba nga xam ne du ñu jooy ñàkk gu sëñ ñàkk nekk ci wàllu matériel ak seen toppatoo seen dëkk yu mel noonu loolu itam beneen jafe-jafe la waaye am na beneen jafe-jafe itam boo xam ne euh, mooy ñi nga xamante ni mag ñi lañ mag ñi foofu mënees na koo séddale ñaar mag ñi àndoon sëñ bi laa bëgg wax mag ñoo xam ne dañuy mbokki sëriñ bi di way jur ci sëñ Modou Moustapha ñuy borom xam-xam ñoo xam ne taxaw nañ yoon wi ci wàllu gune ñoo xam ne sax daanaka mën nga ne sëñ Modou Moustapha su meleen nii mel seen loxo bari na ci lool ndax dañ ko taxaw dañ koo jàngal dañ ko yar lu bare bari ku deme ne sëñ maam Thierno hmm. eh, ak ñeneen ñu mel noonu hmm. suñ ko tuddee ci njaboot gi sëñ eh, su ko defee itam ñooñu mooy mag ñi nga xam ne dañoo bokk ak sëriñ bi ci deret am na ñeneen mooy ñi nga xam ne yàllaa leen fi indi woon ñenn ñi doon ay borom xam-xam yu mag ñenn ñi egg ci seen borom yor ay daara euh, taxawu lislaam bu ne daataan fekk sëñ bi hmm. ñooñu itam bi nga xamante ne sëñ bi moom bàyyi na leen fi ak Cheikh Moustapha ñooñu itam beneen beneen kii beneen équation la ndax day nit ñoo xam ne euh, am nañu yàlla ba noppi ñoo xamante ni ñenn ñi maanaam sa lépp dañ ko fekkee ñu taxawu la ci anam gu ne léegi nag way jur yu jóge na fi nag moom mu war a taxawu place way jur wi ak ñoom ñuy def ak ñoom hmm. loolu kon nit ku mat dëgg-dëgg moo ko man hmm. loolu beneen defi la beneen defi bi itam ñu ngi toll ci jamono ji ci boppam hmm. maanaam sëriñ bi bi mu fi jógee jamono ji dafa mel dafa jékki-jékki rek lëndëm naqari ndax la la ca gën a yéewu mooy ca déwén sa rek dafa mel ne dafa commencé euh, nawet bi rek commencé xaw a naqari Euh, ndax nee ñu nawet ba ca topp mooy même nawet boobu la sax euh, surtout nag ba ca toppaat dafa metti ndax soo gisee sëñ musaaka Ka mi ngi wax ci marché bi mu njëkk a marché Cheikhul Khadim naan wam sa si yaay atum naqar ak bekkoor te xam ne daaw ak daaw jéeg ñoo ngi góor ah, maanaam booba nee na nawet bi rek neexul waxuma la naqar wi nga xamante ni moom la am ci sëriñ Tuubaa mi nga xamante ni moo fi jógee waaye bekkoor a caa am mu ne ndax daaw ak daaw jéeg maanaam dañ daa góob lu bëree bëri waaye ren ji loolu amul. kon daanaka booy xool li mu doon wax daanaka ay 29 lay toll. tomb non non li mu wax sax moom ci 27 ci xam naa mujj 27 lay doon ndax xam nga nawet bi. Mhm. Eh, par exemple ay fin septembre octobre lay jeex. Mhm. kon ci ci ci sëñ bi mi ngi mi ngi génn ci ab nawet. so xaw so nett sax ko ndox mom nga xamne mom moom la gisoon ci bisbu altine bi te gis nañu ay famu jaar te moom defone ne bu wam sasi yaay atum naqar ak bekor kon loolu ca wam sasi la waxuma la nag at yee ca ndax so ki rek xarnu bi ak niko Cheikh Moussa Ka waxe da nga xamne ne naqari xam nga su li ad moone ndax mu tane da mu gëna far delu gannaaw lolu rek métti na boole ci nak len mo ba rab yu ay sax dinaaw manam maanaam ndere njëriñ réew yu mel noonu boole ci lolu moy ci bir réew mi waaye ca bitim réew itam crise économique bu commencé dugg mhm. xam nga su fekkoon ne dafa yem ci biir euh, ci ci bitim réew mhm. crise économique ñun suñu bàyyee dunde mu yomb waaye la nga daa bay di dunde ak di jaay mu génn bitim réew léegi nag dafa am leen lu ci topp mhm. mooy nag mi ngi commencé yi jamono ji mi ngi naqari loolu te beneen défi la bu rëy rëy te défi boobu économique la waaye social da ci aju ndax nit ñi su fekkee ne amuñu lu ñu dunde wala seen nekkin gën naqari lañ daa man duñ ko man ñen ñi fañ da dem duñ fa dem lañ da joxe duñ ko joxe lo économiquement nak ci ko xamné projet yu mag yu baree bari yang ko simbu mo wara ñew ñëw jafé jafé la bi moy sëñ bi jëgëna fi mi ngi nekkon ci gëti tuba bi ak seeni loxo té bëggoon ñu yobbu ko hmm légui mo war ko yobbu tuba loolu itam xam nga ne yombul xel mako wara def ak fidwa du mm-hmm. ne ku nekk moko am mm-hmm. benen dem moy jëmi tuba gogu ñu wax tuba ni ko ak nan la cheikh moustapha war a taxawoo loolu ba ni Touba war a mel wala boog ni bëgg Touba mel ni mbaa ni borom Touba bëgg Touba mel ni. mu mel ni hmm. ca la mu laaj ci wàllum waajtaay ci xalaat ci wàllum jëflante. Hmm. ci wàllum nekkiin ak euh, li ñuy wax condition humaine yi war a am ci dëkk bi am ci. Hmm. yooyu mu tudd yëpp mooy juróom-ñaar bu nekk ci moom doyoon na defi ngir euh, maanaam su ci defoon benn kese ñu ne kii jàmbaar la. te euh, xëy na yëpp du. du du waxtaanu fi hmm. waaye suñu duggee ci biir danga xam ne yooyu yëpp réussir na ko à cent pour cent hmm. loolu nag day loo xamante ni fii jamono ji toll am njàngat la moo xam ne xam naa sëñ Ahmadu dana ci dellu si incha allah taala ci mujj jataay bi hmm. jërëjëf euh, sëriñ Mbacke Lo ci leeral yu am solo yooyu jëm ci euh, cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke bi nga xam ne cheikhul Khadim euh, wuyu na suñu borom ci liggéey yu am solo yi nga xam ne taxaw na ko wane ko waaye njàmbaar ga fit gi ak engagement bi ak détermination bi nga xam ne wane na ko ci li nga xam ne moom la sëriñ bi bëggoon ci ak ginnaawam ñu taxaw ci mu taxaw ci temb ngir loole war a réaliser wu. loolee nag ni ko sëriñ Mbàkke leerale jëm ci njaboot gi jëm ci cheikh yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi jëm ci projet yi nga xam ne sëriñ bi bëggoon na koo taxawal ci dëkk bu sell bi di Touba. ci loolee sax dañ ci jël benn ndax projet yooyu bokk na ci jumaa ji nga xam ne sëriñ bi bëggoon nañu taxawal ko fi. muy jumaay Touba ñu gën koo xam ci grande mosquée bu Touba loolee am na ay conditions yoo xam ne euh, il fallait que mu am ngir jumaa ji ñu mën koo taxawal bokk na ci conditions yooyu muy raay bi nga xam ne moo dox diggante njaareem ba Touba di liggéey boo xam ne ku ne xam ne ne Cheikh Mamadou Moustapha moom moo ko taxaw xam naa ci euh, ponk boobu la ñuy ñëw mu nekk ponk bi nga xam ne daanaka moom mooy gën a doon thème bi ndax sànq rek dañ doon ubbi ngir euh, gën a Euh, duut baaraam ci li nga xam ne moom moo di thème bi seppi ko ci yenn yi nga xamante ni moom moo waroon euh, sëriñ Mouhamadou Moustapha kon euh, sëriñ Ahmadou mu mel ni sëriñ bi bi fi bàyyeekoo defi ni ko sëriñ Mbacke Lo leeralee na waaye mu mel ni raay bi bàyyeekoo njaareem ñëw Touba lan moo wundoon parce que jamono yooyu mosu ñoo gis ab communauté boo xam ne jóg na ngir taxawal ab raay bëgg a liggéey ab projet lan moo wundoon. communauté mouride jog bëgg taxawal raay digënté ñaaré ba Touba nga ñëw ci taarix bi. jëf sëñ Fallou ñi sant yalla bu baax di sant sëñ mbacké Mouhamed ci ubbi waxtaan wi ak ñël ben gi mel ni ko am ak dégg. Mm-hmm. da nga xam bu baax liñ bëgg wax lu mu doon. Mm-hmm. ndax euh, jamono wol beuti xaru kanam andi wanen xaru kanam hmm. mu bes te moy seigne touba ak ni mu tollu ci jamono ak ni mu tollon ci ñi mu nekkalon hmm. xey xey wan len gannaaw loola devi la bu maga a mag boo xamante ni aduna àdduna mënu ko misal seigne moussa ko sax ci yoy yu day wax ni suñu nodde hmm. eh, nee na lay melni ak wurmbal rek ndax xëy na buñ daan nodd ni nga déggee kër gi di riir ak sëriñ bi wàccaay yu jëm si ci jàkka ji animation boobu ak bi ñuy gis léegi bokkut mu mel ni sëriñ bi bàyyi woon na fi ay ay ay ay naal bàyyi na fi itam ay ay recommandation yoo xamante ni ni ki mag ci njaboot gi moom la aju ci kaw losam ben muy eh, jumaa ji nun paham xam nañ ni sëriñ bi ci ak nekkam la bindulu ab demande bo xamni sëriñ bakki bu su ko bind ci turu sëriñ bi tubaab bi nangul ko mu wom borom darul maxtu mi nga xamni bi fi sëriñ bi nekk moy jëw di ñam woo seex Mahamadul Moustapha sëñ Masamba sëñ Balla ñoo ñepp dénk leen liggéey boobu yi digal leen itam ñu jublu ca nga xam ni ca ñaar fukki fan ak juróom ca safar ja la borom daaru jógee daarul moxti ñëw Tuuba ngir tàmbali si liggéey boob yi liggéey nañ ci itam fukki weer ndax diggante ñaar fukki fan ak juróom ci safar jooju yi ba ca tabaski wa diggante boobu lañ liggéey ci jumaa ji liggéey bi taxaw ndax yu bare bari yu ko waral ay ñublang yo xamanteni ni administrateur civil bi ñu denk liggéey bi muy tëlëri dem retraite ak altel berar hmm. ñu nekkon bakke nga xam ñom ñaar ñoo sekk santé bi melna ni am ay ay ay laxas yu ne ci biir yo xamanteni ni normalut hmm. ba tax ñu suspendre autorisation bi nga xamanteni ni mom lañ mayon sëñ bi ci le 4 avril 1927 kon sëñ bi bi muy dem bàyyiwu fi autorisation bu mën a tabax njuma hmm. suspendre nañ ko ci ak nekkam ndax le 4 avril lañ ko def te sëñ bi le 19 juillet la fi jóge hmm. moo taxoon mu wax Cheikh Mouhamadul Moustapha ni ko jumaa ji sama loxo damm na ci na ci sa loxo damm hmm. sëñ Mat Lamine Diop Dagana itam nettali na ni sëñ Modou moo ko wax ni ko toog na ma ak sëñ bi ci benn barab Mak moom kep yàlla di sunum ñetteel mu ni ma defal nañ la sam xel muy sa ndigal maam lépp loo xalaat ci luy tax jumaa ji bu ci diisooti ak man lu weesu tey loo xalaat rek am nga ci ndigal nee na foofa itam la ma waxoon ni ma yaway sama maamir isa ay xasat ka xurubul ayda fa nabih la amiran sumanam. amir nak ab général la boo xamante ni ab buuram moo ko doon tagg ndaxu njàmbaaram nee na boo tëddee ba guddi say noonu yee la mhm. nga dégg ñuy yëngutu nee na neel pëkk pëkk amir ba mu dégg buru bi nga dem tëri te xam la ca war amir dana ko def mhm. nee na sëñ bi ne ma yoway samam amir mu bokk ci yi ko sëñ bi dénkoon muy kër ga sëñ bi nee na kon buñ ko sàqi sama gannaaw muy bunt yu bari fu neex waay jaar mhm. waxoon na ko itam njaboot ga ca biir sëriñ tudd na leen léegi muy waa barsàq yooyu bëgguloon ñuy taxawalu fenn fu ci nekk ñu jëm fa mm-hmm. ndax xar na fii bu yootikun na jooju alxuraan wax ba tey boo demee ci muwaay bu itam bam ne raay du jàlle xis ni nisaa yi la ci teg mm-hmm. kon dañ kon benn barab la ndax sange moom benn barab lañ koy def mm-hmm. sàmm nag mën ngaa jiital li ngay sàmm di dem kon góor ñi ñoo moomee dox bi waaye jigéen ñi ñoo moomee toogaay bi loolu itam bokkoon na ci lim ko dénk bokkon na ci lim ko denk itam moy li doon te njabotam ku tank gi di do feñ lola loola bëgg na ko ci taxawal lola itam di mak ñi nga xamanteni ni nii ñoo doon wut yalla ci gannaaw serigne bi ñan ñi am nañ yalla ba xamni ni am nañ ko ñeneen ñi ci dess laaj na ku leen mm-hmm. itam ñu ngi fi bokki sëriñ bi ci bopam nga xamni mo ñoma bok ma bokk sëñ Mor Anta ñu amaat waccu wàccuwaay ñom itam ci ak bok rek ak aada yoon yu doora ñew ñom itam ñu ngi fi kris bi ni ko sëriñ waxe legi momit mi ngi commencé di nuyo tuba bi itam mi ngi mi ngi ci wet gi di bëgg lam daan bëgg te mooy yuriduna li yutfi u nuurallahi wallahu matimu nuura walau kariha al kafirun mom li fek taal bi fayit ñom du ñam jam yoy nak ki nga xamanteni mo taxaw ci kanamam borom ñeen fukkat lam ñeen fukkat lam te it booba itam katanuk sayir ci yoon wi bari wu non pas-pas pass nga fi ak yitte ju bari barabu yu xaalis itam yo yo ni mi ngi fi woon ci jamono joji lu wessu commerce ak mbay tamit yaakaar naa bëriwut fu woon te mbay ma itam du mbayum machine du mbayum tracteur mbayum wagg yu nangu lay doon larmet rek ak konka hmm. ak i ngoos-ngoos la mag doon jëfandikoo beneen bi ci des itam mooy sëriñ bi bi mu fi nekk fu mu nekk mooy foofay capital mouridisme kon bu fi jógee gannaawam fu mu ko mën a def foofay capital mouridisme hmm. foofu nag murid yi mënuñu koo def fu ñu moomut ndax du n'importe kii moo fay ñëw te dafa bari yuñ fay bañ yoo xamante ni ñoo ko mën a saytu seen bopp. loolu itam am na taxawaay bu ci sëñ mu saa war a taxaw ngir mën a lewal suuf si. Mm-hmm. bam nekk ci turu sëriñ bi. Mm-hmm. waaye nekk ci seenu moomeel di dox ci seen seeni waaw. Mm-hmm. waaye yooyu yëpp nag nu bàyyi ko xel rek waaye li ñu ci tax a jóg nga xamante ni moom la waxtaan wi bëgg a génne. mooy yoonu saxaar gi. nga xam ne tubaab yi tegal nañ ko ni su amut jumaa mënta am mm-hmm. su amut rek jumaa mënta am kon mënee sa tudd jumaa te yoonu saxaar parewut mm-hmm. yoonu saxaar googu itam du lu yomb ca jamono jooja mm-hmm. ndax lu jiitu histoire boobu gisuñu benn communité boo xamante ne ni xàll na aw yoon boo xamante ne ni yoonu semaine de fer la doon ligne privée gisuñu ko histoire wu ko te yoon wi mënta ñàkk ndax li leen sëñ bi wax ci jumaa ji ndax nee na leen suñ wan na ko ni mel ba pare te su fekkente ni nii ñoom defaruñ ko suñ borom dana fi wàcc ñu ko defar te it sëñ bi wax na leen yool bu rëy ci nekk boo xam yéene naa leen ko kon faaw yitte ju kawe kawe loolu moo tax nag adduna fa dafa am aw doxalin kon sëñ Moussa faw mu tënku ci procédure bi nga xamante ni moom la adduna di tënk mhm. ay doxalinam faaw mu adapté wu ci ndax dama doon wax ni jumaa ji daja wàcce kaamil taxut jumaa ji taxaw mhm. jàngum xasida taxut jumaa ji taxaw mhm. ndax yooyu yëpp a ngi fi woon te taxut woon mu taxaw kon am na leneen loo xamante ne ni mbirum saayir la moo xam faaw ñu bàyyi ko xel euh, tubaab yi itam biñ koy jox yoonu saxaar gi dañ gàllankoor lañ ci jublu parce que jàpp nañ mënu ko te bëgguñu seen diggante ak moom yàqu ndax sëñ Tuubaa jàngaloon na ko nu muy dunde ak ñoom mhm. ndax nee na koon tubaab tubaab xaalis mooy xaalis rek la ñuy jàmm mhm. soo amee xaalis loo bëgg ci ñoom da ko am waaw luñ la bañal rek da dara mhm. waaye boo yoree xaalis moom bari na luñ la doon bañal loo xam dañ ko nangu moo tax sëñ Moussa Ka di wax naa ko yow tubaab bi jox na la mbëgg te bàmba dañ ko daan safu ay naa ko yow li nga am bàmba sax amut lu ni day tubaab bi jox na la mbëgg te bàmba dañ ko daan safu ay mooy li ko tubaab yi nangul nangu mhm. luñ ko woon sëñ bi mhm. bi nga xamante ne ni loolu loolu am na léegi yitte yi sëñ moodu mooy yoonu saxaar gi mhm. tubaab yi tegal koy condition condition yi ñu ko tegal mooy day bind demande parce que ñi fi nekk ci Sénégal représenté nguurug France mënuñoo dogal yoonu saxaar faw dañuy bind ab demande envoyé ko France hmm. suñ ko valider mu del wat hmm, hmm. ñu door ko wax condition yi ñi liggéey motax mu bind daman ñu yobbu ko conseil privé waxtan ci biñ ci waxtane ñu ko légui dañ koy envoyé moom mënta sorté fi ngorok France biñ démé ministre de la colonie waxtan ci ak président ñu adapté loola ñu nangul ko ñu delu ci wat ko ne ko léegi nangu nañ ko waaye ci ay conditions ñu woo ko kër commanda mu dem wuy ji ñu ni ko léegi yoonu saxaar wi nga doon toppatoo te mu xaw a jafe léegi suñ boroom ubbi na bunt mooy tubaab yi nangu nañ ko waaye nag nee nañ ouvrier yi yaa koy wut ndax ñu ouvri yi ñu amoon yóbbu nañ leen Madagascar ndax sànc yuñ fa am hmm. loolu ki yoroon liggéey bi société bi ko yoroon. société Batignolles la. ñoom ñoo ko yoroon. liggéey bi léegi ñu ñoom ñu ne ko kon junni nit moo koy liggéey ak juróomi téeméer. junni nit ak juróomi téeméer la tànn ci biir murid yi ñoo xamante ni nii liggéey bi semaine de fer bi ñoom ñoo ko yor sëñ Modou ne jiwoon ak ñoom ci junni nit ñi ak juróomi téeméer. ñu ne ko junni nit ak juróomi téeméer yi seenub dund yaa koy gàddu mu ne ba tey juboo ak ñoom ci loolu lañu dundee ba keroog liggéey bi dundee ba keroog liggéey bi àgg mhm. ñu ne ko dund bi du doon cere ak laax te xam nañu boobu moo fi gën a bari mhm. ceeb lay doon bu ànd ak ndawal te day am diwlin mhm. kenn ku nekk 300 grammes yi ceeb lañ koy calcul mu juboo ak ñom ci lool nga xamni bis bi set bari ko la doon naka xana ginaa liibar gu tek tuti la waaw ginaa liibar gu tek tuti lay doon mm-hmm. par kenn mm-hmm. te day am ndawal am diwlin mu juboo ak ñom ci lool ñu ko tam diire bi ndax dañu am yenen occupation yu ñi demi mm-hmm. kon dafa am diire bo xamanteni ni su ci liggéey bi wut da ngay perte duñ la rembourser duñ la dédommager te duñ ko agalé juróom-ñaari at lañ ko may. mu jubóog ñoom ci loolu. ci diiran boobu. ci juróom-ñaari at yi juróom at yi ñu ko war a liggéey. Mhm. kon doon woon liggéey bu yomb. Mhm. bi ci des mooy suuf si diggante Jurbel ak Touba tubaab yi natt nañ ko cinquante kilomètres la diggante Jurbel ak Touba fii saxaar yoonu saxaar gi jaar. Mhm. du suuf soo xam ne murit yee ko moom. xayna amna ci benn benn tool yo xamni ne tool yi murit la hmm. waye amna ci yo xamanteni ni yi moomu ñu ni ko nak ñi mom suuf ci su fekke dañu soxla ku len leen dédommage hmm. ya len di jox mu mu d'accord ak ñom ci loolu hmm. li ci dess itam moy kilomètre yi kilomètre bu ne 200000 la 50 kilomètres di 10 millions 10 millions waaw kilomètre bu ne 200000 cent mille la bu pare loolu itam mu nangu ci léegi bi ñu fekkee bi ñu juboo ci ci condition yi léegi moom mu bàyyi koo fa del siwaat ci njaboot gi mu bokkal Sëñ Tuubaa nag ngir waxtaane ak ñoom li nga xamante ni moom la sartante ak tubaab bi loolu ci ban la woon loolu mi ngi woon ci 1928 moom sëñ bi daa dem rek mu engagé waaw amutu xaar sëñ bi daa dem rek mu mu mu commencé ndax jumaa ji la fi song ñu xamal ko ne ko jumaa ji moom mënut am. te lii taxawut te lii taxawut. Mm-hmm. en même temps itam ci biir communauté mouride bi bokkuñu ci ay gis-gis ndax. Mm-hmm. jumaay njaarim ji xam na liñ ci daj ci ay coono doora ne te mm-hmm. boobu suñ baa ngi fi suñ bëggee songaat janeen jumaa joo xamante ni su paree jumaa njaarim ji waañ lay doon ci moom te kiris baa ngi dugg si te sëñ bi nekku fi loolu itam bokkuñu ci woon ay gisin taxoon na am na ñoo xam dañoo toog di seetaan jàpp ni loolu mënta ne waaw kay loolu mooy mooy jafe-jafe yi nga xamante ni sëñ Modou doon na ko dul te moom xam na li ko sëñ bi wax xam na ni jumaa ji moom bakkanam la ci teg mhm. daje nañ ci yoon wi ay yoon ngir mën a réaliser loolu mhm. waaw waaye sëñ bi bàyyi woon na fi xaalis boo xamante ne nii ca jumaa jële la ko doon dajale mhm. lu tolloo nag cinq million mais bari woon na lu ca laatu ndax un million cinq cent yi te lekkoon na ko ci ay yu mu waxoon ni moom lañ ko war a jox. ak mm-hmm. ak étude technique yoo xam ne doon na ko def. Mm-hmm. sànce bi itam démarré woon na bañ commencé indi ciment. Mm-hmm. indi fa ay xeer kon xaalis ba. moo tax tout 5 millions. su fekkee aw des la itam des boo bëreetul. waaw kay eh, sëriñ bi itam nitug diine la ko doon dund ci diine bi mu fi jógee itam dañuy yoonal gannaawam. kon li fi nek dañ ko yonal kenn ku ci nek jël sa wàll li fi nek lepp dañ ko jël impliqué ci liggéey jumaa ji mm-hmm. loolu itam mag ñi nga xamni ñoko taxawon digënt señ diggante bu sok borom daro yooyu taxawu nañ ko ba yonal gannaawum kenn ku ci nek jël li nga am mm-hmm. yooyu mooy jafé jafe yi nga xamanteni ni señ mod bimu ne teul rek yooyu moko doon xaar mm-hmm. waye fitam ak jomam ak ngorom Aku ku gëmam sëñ mm -hmm. wax ni bu ma yoron kaasu café di ko naan ba mu wër ma ni li kaasu café la li ma señ bamba wax te gisaguma ko la gëna gëm ci kaasu café bi ma yor motax mu songu liggéey boobu moy mhm. bi mu ñëwé rek da dajale njabot gi wax leen liggey bi ko mu don wax ak tubaab bi mhm. te nangul ko ko nit ak juroomi témèr ñokoy liggey mhm. ñu wax ni señ basiru ku suñ borom dimbali la ci am xel mu rafet ak euh, yooyu sëñ basirum seexul xadim mm-hmm. ak taxawaay ak ni mu takkook sëñ Moussa ndax sëñ bee leen boole woon mm-hmm. ci ak nekkam euh, gannaaw sëñ bi itam noonu la laxasoo tam ci moom ba buñ ne magi bas rek nga xam ne sëñ Moussa la ñuy wax te mm-hmm. seenub ànd ko waral euh, ni ko dana jàpp ni kilifa yi aju ci yoon yi bu ko ne indee juróom indee juróomi nit juróomi junne juróomi tamit dana mat te kenn du ci sonn waaye xalaat boobu daa wéeyut mooy gisewuñ noona ñàkk gaa gisee noonu nag moo tax Cheikh Ibrahima Fall làmp Babul Mouridina daal di indi juróom-ñaar téeméeri góor yàlla yoo xamante ni ci ak njabootam la leen jëlee même ay doomam da leen a bindaale mm-hmm. waaw ay doomam ci boppam da leen muy junni nit ak juróomi téeméer mm-hmm. juróom-ñaar téeméer sëñ Mandoumbe mm-hmm. eh, juróomi téeméer moom itam di boroomu yitte borom pas-pas boo xamante ni ni nit ñi dañuy wax ni xàmmewuñ départam bi sëñ bi demagut ci géej gi ak bi sëñ bi demee ci géej gi bàyyi ko fi ak ginnaaw bu sëñ bi ñibbisee ak bi sëñ bi demee bàyyi ko sëñ Moussa ñe mm-hmm. ñettaam yooyu xàmmewuñ ko muy benn vitesse rek la doon daw mm-hmm. moom itam daal di joxe téeméer suñu am satuloo bu ngaabu moom it di doomi ndey sëñ Masamba ñoo bokk mm-hmm. yenn ndey te bokkuñu baay moom it joxe téeméer kon li ci des juróom benn téeméer yi lay génn ak njaboot gi mu bokkal sëñ bi te booba ñu doon ay mag nga xam ne yor nañ mbooloo ndax buñ ne njaboot gi mbokal bokkal bi rek nañ bayyi xel ci ni ñi nga xamanteni ni 14 lañ gane aduna jëm suuf mom hmm. bobu mom dañu tollu ci ñu di leen taxaw ñu jàng hmm. waaye boo amuñu mbolo wala alal ju ñi participer ci hmm. ci ab liggéey waaw kay lool itam daf ci mat di bayyi walé xel bu baaxa baax euh, sëñ Modou daal di wax léegi ni léegi nañu ubbi ab lis bind kep ku fi ñew itam na ñëw wax ni mu fi dikke hmm. ñu bind loolu ku ñuy wax Ibra Fall Buri moo ko yoroon Ibrahima Fall Maajoor doon na ko jàppale ak ku ñuy wax Cheikh Kan taalibeeb sëñ Afia hmm. ñooñu ñoo yoroon bind mi bañ bindee ba pare dañ ko jox sëñ Moodu sëñ Moodu xamal ne leen mbindum càmmoñ moom xaw ma ci dara waaye seen bind mi rafet na xam naa ki leen koy bindloo bu ñëwee dana ko bëgg hmm. waaw tubaab yi ñëwee tam ñu jox leen bind ma ñu ni baax na waye nak dañuy dañuy ñëwaat beneen yoon bo xamé dañuy rappel hmm ba xam ñiñ tànn apt nañ pour mën liggéey liggéey bo bi ñu bëgg somb wala déet ndax dañoo gas bam mu agsi Touba hmm. fukki wër ak juroom la yo xam dañoo gas ba paré hmm pare door a wëlbatiku dem di tek wéñ yi di di wiise hmm. kon liggéey la boo xamante ne ni yombul hmm. te yoonu saxar du dugg ci xur du yéeg ci tund bu dé aw xura dañ koy sëkk ba maase. Mhm. bu dee aw tunda dañ koy lelli. Mhm. parce que point zéro lay départ. Mhm. Euh, ci gàttal rek loola moom daat ndaat daat na yëm léegi mu dem am convention ak Morel Porom. comptoir commercial la bu yaatu woon ci biir Sénégal boo xamante ni tubaab yi ñoo ko moom ak libaana yi. ngir ñu koy fournir ceeb. booba itam ceeb yombut ndax boo nee ceeb rek dañ jàpp ni fi mu doon nii nga xamante ni daanaka ku ne mën na ko am. waaye booba moom taxut mu deme noonu. iwilil bu bawal mom la demoon convention ak ñom pour ñu diko fournir diwlin li ci dem ci ndawal itam talibeem yi ku ñu wax Modou Kay Thioun mm. ak njabotam nga fi ba léegi mom la ko sëñ bi denk nga xamanteni ni moy top to jur gi ci yiñ ci def 1500 mm-hmm. euh, personnes yoy tuba bi dañ ko jël xaj ko ay xaj 45 personnes par 45 45 yi day dem am ben chef d'équipe léegi am ab gardien am ab planton amub tosiñe convoyeur quarante yi ci des ñoo yor pik ak peel su ko defee ki yor pik ak peel léegi moom dërëm lay fayu ak ñetti fifteen chef d'équipe bi ñaari dërëm lay fayu surveillant bi ñaari dërëm lay fayu ak genn wàll surveillant général bi juróomi dërëm lañ koy pointé par jour nii lañ leen doon pointé par jour nga xamanteni ni bu wer de dañ leen di fay. Mm-hmm. kon ab liggéey la bo xamanteni señ sëñ Modou daf leen daan wax ni na ngeen ci gor gor lu bax ndax da ngeen ci amuk pay fi amaat ci ganen pay. pay ah, muy li leen tubab yi def lo mm-hmm. bokut ak li nga xamanteni ni ñom mom lañuy defal mm-hmm. señ bi don tubab yaa ngi leen di joxal it wàññiwut ci seenub yool dara. Euh, lolu ab taxaway la bo xamanteni ni Cheikh Mouhamadou Moussa nak tubab yi seen bop nak ñom liñ ko wax moy ay technicien rek lañ lay jox. techniciens yi fukki tubaab lañ ak ñaar. Hmm. yoo xamante ne ni ñoom ñooy yor liggéey bi li ci des lépp njabootu murid yi la. muy main waaw kay léegi tubaab yi ñu leen doon yox ab benn commandant lay doon. Hmm. commandant bi sama monaag la tudd. dana am ñaari capitaine. Hmm. benn capitaine bu ñuy wax Grosjean. am na ñu ñetti lieutenant boo boo xam ne Junot la ak Dalal ak Renault Picard. am na itam benn assistant chef bu ñuy wax Vincent. léegi am na ñeenti sergent. yoo xam ne Jacques la ak Jacquin ak Gaguin ak Albres mhm. léegi am na ñaari caporal Brevet ak Dobarva ñii lañ fi indi woon mhm. su gisee ñu koy leeral itam mooy daam ñeneen ñoo xamante ni li ñu jàpp seen bopp mhm. dañuy semaine de fer bi nguurug France moo ko moo moo ko moo ko financé te seen financement génn na waaye bis bi ñu wax ni si seen financement génn gouverneur général ci la ci la euh, daloo yoonu saxaar gi Dakar jóge Dakar ñëw Njaareem ànd ak sëñ Moussa ñëw fi muy le 19 mars kon ñom bu seen xaliss génnee amna fuñ ko duggal wa mhm. am dañu bëgg xam rek ni tapalé yi dox digënté tubaab ak ak yoon wi mhm. yag na mhm. waaw waye li mom al seigne Moussa ci dem liñ privé la ñom xam nañ ko ndax ñi ñi tuddu du ay tour yu ñu fent ay tur la yo xamanteni ni xam dañ seen tour ku bëgg a gëstu jiit man nga déllu wat bu ko défé ñu bàyyi kàddu foofu jërëjëf jërëjëf seigne Ahmadou euh, leeral am na solo lool bokay déglu sax do bëgg bayyi ndax tarikh dafa neex surtout lo xamanteni bokay wax dang koy tek fu wér euh gis nañ engagement bi nga xamne Cheikh Amadou mustapha woné nako ndax bép condition bo xamne tegal nañ ko ko da fay accepter ndax wolu gi mbolu Serigne Touba ba xamne lam ko wax mom te bëgg ko da ala alaku lal day am lol jokk ko fit ba lépp lu ko touba bi wax rek ci condition mu mu mu nangu waye lolé fit gogou ak engagement bobu may nako ba lam bëgg ci condition yàlla suñu borom réaliser ko Euh, tey boo doon ñëwaat ci jàngat ci li nga xam ne moom la sëriñ Ahmadou wax ak euh, fituk Cheikh Amadou Moustapha ak engagement bi nga xam ne wane na ko ci liggéey bi ne lii moom alaa kulli haal day am condition bu ñu ko mën tegal mu teggi teg fële ne lii moom incha allah dana dana dana réaliser wu. Hmm. Euh, jërëjëf sëriñ Fallou jërëjëf tam sëriñ Ahmadou ci histoire boobu indi te mu yaatal ko lool mu am solo ngir détail surtout sax yooyu mujj tudd mhm. ak njàngat mi nga xamante ni teg na ko ci ni nga ko waxee itam euh, juj ndaa ko sama biir wax ne sëñ Modou Moussa dañ koo defar mhm. dañ koo defar maanaam li nga formé daal dañ ko waajal waaw mhm. defar goo xam ne dañoo séntu ci moom ci mu jiite loolu na xëy na bokkut ak defar ngir mu def leneen moo tax soo dee tudd ak dogu ci biir waaye itam nag ak gëm gëm yàlla gu wér wér ak doyloo sëriñ bi da ciy feeñ euh, beneen bi itam mooy xam gu mu xam jamono mm-hmm. xam gu mu xam jamono ndax soo dee seet ni ko suñu ama tuddee léegi am na ci ñoo xam ne ci njëlbeen ga jàppoon nañ ne projet bii ñuy wax moom mënta nekk dañuy tudd sax ñoo xam dañ ndax naan suñu ko doon def làkkub dóor dóoru doo egg te xam nga doo dóor moom yaakaar naa hmm. amul benn charge économique bu ci def hmm. hmm. ndax da génn fii rek ci àll bi dem dagg sam ngeer ñëw defar ko kon tolluwaay bi ci gisinu xóot ak xool ca kanam day lu ci am solo surtout soo gisee projet jumaa ji ni mu yaatoo suñ ko doon méngaleeg jumaay njaarim ji jumaay njaarim ci jamono jooja fii fépp moo fi dàq ci réew mi Eh, moo tax sax su comme que sëñ Moussa Ka dafa ne ba juma yaa ngi mel ne la mom la jox mom misal japp na dal yi des yëpp moom daanaka bukkuñu hmm. amut nuñ koy mën a comparé hmm. léegi lolu loolu lu muy firndeel soo juma jumaa jumaa bi ak ni mel ak cheikh yu mag yi ko jité won nga xamna ñoo ca nekkon ah, serigne bi nekk seen kanam ca cawarte gañ cee am hmm. ak kóolute gi ñi am ak xam ne kii moom projet bi mu jiite dana mën a nekk. léegi nag sëriñ bi jóge fi ba noppi moom mu fi jël nag dafa mel loo xam ne su doon benn tey def na ko juróom-ñaari yoon. loolu jafe-jafe la. beneen jafe-jafe bi ñu ne ko bala ngaa am lii nag wutal ab raay boole ci. beneen jafe xam nga 10 millions rek rek rek. ca jamono jooja. koo doon xaal fi mu ne ñaata milliards xamuloo ko. ci jamono joo xam ne suñu xam tudd na ko ni mu naqaree woon booba loolu dëgg la dëgg la ne wóoru yàlla bu baax la. ak itam doyloo sëriñ bi waaye itam sori ab gis-gis la ndax fu mu dul nii foofu ma ne sa jàng leneen mooy sëñ Maodo Moussa surtout ak suñu jamono ji xam nga mënoon naa wax ne ah nañ xaar ba jamono neex wala am naa projet yeneen yoo xam ne moo gën a farata. ne njabootu sama sama baay gii booleel mooy seen priorité. wala nangam mooy seen priorité waaye gis nga ci anam gu ne yëkkati na ko te benn suutu ci. loolu lu ñu jàngale lu am maana beneen bi itam. Desa ko ci jangé moy gina ba mu demee ba ñew ak ni muy doxalee ak mag ñi. Mhm. sëriñ naka jek da da len da wo mhm. di waxtaan ak ñom nga xamné lamuy nar da len koy wax. Mhm. laaj len ci seen xalaat xalaat bu gëna rafet te mu mën ko jël. te lolu xam nga né e, day lo xamné sunna la sallallahu alayhi wasallam sunu borom moko digal. sunu borom mo ne ko na ngay ak ñom ci say décision. so demee nak ba dogu ji mbir defal te wëru ci yalla Mm-hmm. loolu day day euh, taxawaat fii. Mm-hmm. ndax ba mu demee ba ñuy wax ne loolu mënut a nekk naa nangam nangam moom moom dafa jàpp ne li nga xamante ni moom la sëriñ bëgg yàlla dana ko dogal. Mm-hmm. mu jeex mu dogu ca loola wéeru ci yàlla waaye taxul mu woon kenn gannaaw loolu itam euh, luñ ci jàngat la loo xam ne lu am lu am maana la bi ci desit mooy xëy na si am tudd na ko ci biir. mooy mag ñi ak yoonu mu itam nga xam ne ndaw wala boog. xëy na sax du ndaw lool waaye boroomi kàttan ñoo xam ne du mu yenn at yi naka jekk dañ ci am wàccuwaay yoonu mu boo ko sëñ boo sëñ bi di sos boo fanweeri at la am sëñ Muudu Moustapha ba mu nekk ci yoon wi di ko jiite ñeent fukki at la am wala ñeen fukki at yu manqué su fekkee ci sunu weer yi kii yi la sunu weer yi wolof yi xoole loolu nag fukki at yu manqué ku ko am ñun ñëpp ñu wóolu ko jox ko yoon wi sëñ maam Cerno nga fi te mu magum jëm sëñ Mbàkke Buso ngi fi mhm. ak ñeneen ñeneen sëñ Daam Abdourahmane Lo mag ñooñu ñëpp nekk fi wóolu ko fi mooy naka jekk yoonu murid mhm. ci ndaw ñi mhm. soo gisee sëñ Modou Sow itam ña ko daa doxal yenn yi comme Alaaji Mansour ñu mel noonu itam ne du ñuy mag daal sëñ Bachir ak nam daa àndeek moom bi sëñ Baara moom itam nee nañ léeg-léeg daan na fa ñëw nam ci daa da ngay xam ne kon naka jekk yoonu murid wax waxambaane yooyu dañ fee am doole dañ doo am pësteef dañoo am ak dogu léegi nag jamono jii nag fi mu doon dañoo jàpp ne koo amagut juróom-benn fukki at daanaka waroo am taxawaa ci yoon wi loolu itam lu lu mat a jàngat la. beneen bi mooy mag ñi nag jar na waxaat lan moo tax nag ñu sawar ci mbir yi. dëgg la sëñ Touba ba liggéey sëñ Touba la waaye nag melokaanu Cheikh Moussa itam da ci feeñ. ndax ba mu ñëwee na mu ubbi ko seen biir nga xam ne daawu ci sàllalu kenn. bàyyi diw lay wax ak bàyyi diw mm-hmm. moo xam ñi nga xam ne ay baayam lañ ndax dañoo bokk ak baay wala ñi nga xam ne dañu ay mag rek ci yoon yi mm-hmm. fi mu doon dégg bàyyi mbay saara daa wax ñu mel noonu te ci mbokk mën naa am ngir mu xam lan moo ko booleeg sañ mbay saar dana dox ay maam yu baree baree bare mm-hmm. te mën naa am sax du ko xam waaye kon war ma jooju mu leen joxoon ak fonk gi mu leen fonk ak laabiré gi mu leen di laabiré la mu leen mën a dimbali ci xelam wala sax ci wërsëgam loolu itam day lu ci am solo mooy nu ubbi ko soo gisee eh, ku demee ne sëñ Maam Mor Kayre sëñ Mor Kayre tudd na ko ci ci ci lenn ci bay di yoo xam ne man naa jàpp ne day day wax ak ñëpp ndax mu naan cey Moustapha suñu seetaanoon na nuy xala def xanaa di baa yooyu dëkkee jooy ba Cheikh ferale maanaam su fekkoon ne am na nu mu demee su toogee rek ñoom daan jafe mu am jafe-jafe ndax bokk na ci jafe-jafe bi léegi mooy da nga naan dañuy digg ñaan diw moom sëriñu gone la mag ñee koy wax ndax dañu jàpp ne wóoru ñoo mën a def moom bokkuñu ay jamono bokkuñu ni ñuy waxtaane bokkuñu ay préoccupation yu mel noonu sëñ Modou Moussa nag nam daa mën a waxtaane ñi nga xam ne ñoom mën a di wax ak ñoom mag ñi nga xamante nii ay mag lañ ñoom sëñ Daam Abdourahmane la noonu la daa mën a wax ak ñoom li ko waral dafa ay qualité yoo xam ne dañ koo dañ koo def ci moom yooyu yëpp nag day firndeel benn dogu gi am na ci waaye ubbiku gi am na ci wóolu yàlla am na ci xam jamono am na ci laa biir am na ci loolu nag jàpp naa ne lu mat lu ko waxee rek ku mel noonu ak mu xam ne du ma ne naa nekk ba jamono neex naa def la ma tolloo la ca des ma bàyyi ko ma bàyyi ko yàlla yaakaar lu mat a jàngat la ci raay bii ak réussite gi ko ci yàlla may ndax sañu xam ne nee na juróom-ñaari at lañ ko xoon te jàpp ñu woon ne juróom-ñaari at yooyu dana ko fi mottali. Mm-hmm. yàpp jàppuñu ko dañuy yaakaar moom day échoué. Mm-hmm. léegi nag yooyu yëpp nag kon dana tax lan moo tax nag mu def ko ci lu maanaam ñaari ñaari. solo loo xam ne yaakaar naa beneen yoon dañ gën a am occasion man koo jàngat bu baax mhm. jërëjëf euh, sëriñ Mbacké Lo jàngat bi am na solo lool euh, xam naa ñu euh, kiyante waxtu yi rek ndax daanaka mat na sëñ Ahmadou mu mel ni ni ko sëñ Mbacké junjee sax ci ci ci jeexantal gi ñu buggoon a xam raay bi kañ la noppi diggante bi ñu ko liggéey ak ndax tey mën nañ jàpp ne raay bi patrimoine yoonu murid la tey yoonu murid ñoom ñoo ko moom jërëjëf sëñ Fallou raay bi ginnaaw condition yooyu ñu tegaloon sëñ Modou. Mhm. Euh, moom ci boppam sax dolli na ci ne buñ ko waxoon ni ko da ngay solu soldaar waaye diggante ab sàngam ba ak sàmbang da ciy bokk yoonu saxaaru dooram mu solu ji soldaar ndax liggéey sëñ Bamba bu jaral nag ko. Mhm. tubaab yi euh, ñu ngi tamaare liggéey bi ci le 11 novembre 1928. Mhm. lañ tàmbali liggéey bi mu jeex la 14 février ci la liggéey bi lepp jeex ñaari at ak ñeenti weer ci lañ liggéey yoon saxal fukki weer ak juroom mom lañ gas li ci dess ñu doon teg wéñi di séré ñu dag li ci dess moy sot ci xéer yu ndaw yi tomboro bi dëgëral yoon saxar gi jaar ci motax ñu wax ni yoon saxar gu ndaw googu bu jëkke kalak sone fii ci Touba suñu sa laajte ne loolu yëngu lu mu doon ndax jàpp na ni ëllëgee wërta ak si foofu ñu ni ko saxaar gu ndaw gi dëgëral yoonu saxaar gi la mu ni ndaxte yàlla dee suma jàpp ba di ma suul looy pax kon li sëriñ wax <laughs> am na mhm. mooy gëmuñu woon ni mën na ko réaliser mhm. te am na ñu gëmoon ni dana am jafe-jafe ak tubaab bi mhm. ndax dañ daan wax ni àll bépp gas na ko nan day defal yoonu yoonu saxaar yoonu saxaar gi patrimoine yoonu murit la yoon moo ko moom euh, tubaab bi nag seeni i document seen i archive nee nañ financé nañ ci ministre de la colonie 23 millions et quelques yoo xamante yoo xam ne saxaar yi ñu wax. Mm. dañ ne woon Jurbel lay tàmbale dem Taltal Taltal nag ñun giñ ci am ba léegi saxaar àggagu fa. Mm-hmm. su fekkee daa weesu Touba itam. léegi nan ko mu ngi ci wetu Darou Moussi. moom mm-hmm. as ndëkk su tuuti la goo mm-hmm. ba léegi yoonu saxaar àggagu fa. bu fekkente ni lu weesu Touba la itam ndax ñoom tudd ñu ci Touba. Jurbel Taltal lañ wax waaw waaye Jurbel Touba moom sëñ Moussa moom moo ko financé ak. njabootu Sëñ Tuubaa gi muy communauté mouride 46 kilomètres itam lañu ñu réalisé. 50 kilomètres lañ ko facturé moom la fay 46 kilomètres la ñu réalisé. Mm-hmm. loolu ku ne mën na ko euh, biñ ko inauguré itam gouverneur général. Mm-hmm. brevet moom la fekk moom moo moo ko moo ko kii kayit mm-hmm. euh, général brevet la. directeur général euh, des affaires d' Afrique. muy maaye. ma nga woon ca saxaar ga. Euh, directeur de travaux publics ba tey moom ma ma ma nga ca directeur général semaine de fer la jardin directeur travaux publics mm-hmm. maaye aloyof maaye la baneen bi ci des mooy gouverneur général SARS commune de Dakar mm-hmm. wàjjee ma nga ca woon li ci des suñu soxla ak ñooñu ñii nag kon dañoo dugg ci saxaar gi dugg ci saxaar gi ñoom Dakar lañ duggee mm-hmm. jaar Tëngéej mu def roulante patrimoine autorité yu nekk foofu dugg mhm. mu ñëw Thiès mhm. taxaw cinq minutes kilifa yi nekk foofu dugg ndax gouverneur général daal def déclaration ñeen képp koo xam yaa ngi liggéey ci administration française te jege foofu mhm. ñëwal ci gaar bu mag Dakar nga dugg si su la Tëngéej jegee taxawal foofu xaar su fekkente Thiès la gën a jege. taxawal foofu xaar na su fekkee Touba la gën a jege nañ la fa nañ la fa fekk chef de canton yëpp nañ leen naa leen fekk Touba. Hmm. ñu ci diggante bi fekk rek seen i tur a ngi fi. xëy na ñu ngi nodd moo tax euh, xëy na hmm. du ci jar kiyaat waaye yeneen émission yi ci njëw ci kanam yoo xamante ne ni. Hmm. dañ ko gën a leeral incha allah. ndax njëkkante rek ak waxtu yi ak sàmmante itam. ak waxtu yi. jërëjëf sëñ Ahmadou Ndiaye Nguirane xam naa rek euh, suñu dernière question ak euh, Serigne Mbacke Lo mu mel ni sëñ bi Euh, teg nañ chemin de fer ngir liggéey juma waaye mu mel tamit chemin de fer dafa nekk ci loo xamante nii dañ naan day suqali am réew hmm. ndax tey dem nañ ba ci réew yu bëree bëri bu ñu demee ba ñàkk raay sax dañ koy jéema a suqaliwaat ngir indi train ak la mën a jural réew ma ci indi ay marchandises hmm. ak yeneen jumtukaay yoo xamante ni dana fegal yoonu suuf bi hmm. ci yàq goo xamante ni mun nañ ko yàq muy goudron bi waaw ah, jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Ahmed euh, ñaare li tax a suqali dëkk laa waxuma am réew ndax ñu bari bari dañuy wax dëkk jublu ci réew. Mm-hmm. bokk na ci li koy suqali mooy mu am yoon. Mm-hmm. yoon woo xam ne day am assurance te loolu dafa gën a yomb ci eh, chemin de fer. Mm-hmm. beneen bi itam day jàppandal dem gi ak dikk gi. xam nga bokk na ci jafe yi réew mi mooy li ñuy embouteillage. ci sunu yoon yi. soo gisee li tax ñëpp di màggal lu demee ni Ila Touba loolu moo ko waral. waaye fi mu nag su fekkoon nag ak saxaar da cee yokku. maanaam vitesse bi ñuy moom mooy gën a yomb daal fluidité mm-hmm. euh, maanaam yomb dem gi ak dikk gi da ci am euh, boo ko ak nag euh, transport des personne et des biens mm-hmm. nga xam ne nit ñi suñu bëggee jóg dañuy am surtout waxtu dem mm-hmm. waxtu dikk ak yomb gi ak bagage yi nga xam ne xëy na tolluwaay bi dana tax jaare ko foofu day gën a yomb tey wala sax tey boo jëlee marché euh, Ocass ak ni mu mel li fi ñëw ci conteneur su fekkoon dañ koy jaarale ci saxaar gi doona mën a gën a yomb euh, jaar ci yoonu suuf waaw te tey tamit économiquement ci lay gën a mhm. neex a mhm. ci lay gën a neex a contrôler ndax euh, dafa bokkut ak tali yi ak brèche yi ñu am ci dëkk bi mën a jaar mhm. yu yu bëree bëri yoonu saxaar daf koy daf koy am léegi nag dafa mel ni suñu réew yu nga xam ne mooy réew yu ndaw yi léeg dañuy toll foo xam ne dañu yaakaar nangam dépassé nañ ko te soo dee gis euh, yoonu saxaar ci réew yu mag yi sax ci la gën a développé. Mm-hmm. ñu ngi ci xalaat sax ba ci xalaat li ñuy wax TGV. TGV mooy yu gaaw yi. Mm-hmm. ak yi nga xam ne day jaar ci biir tunnel yi am na yoo xamante ni li ñuy daw par kilo par waxtu dana mat ay ñeenti téeméeri. Mm-hmm. kilomètres comme Chine ak yu ndax dañoo xam ne euh, oto ñaari oto ñeenti nit. gën jaa bari juróom fukki nit. waaye nag saxaar ak lam mën a def. ak itam organisation ba ci am te mu doon moomeelu réew mi mm-hmm. ak la ci aju ci li ñuy générer ci économie mm-hmm. bari na bari goo xam ne euh, réew yi nga xam ne ñoo xaw a kese ñoom ñoo koy ñoo koy xaw a doy dal wala ñoo koy woon sëriñ Mbacke jërëjëf euh, sëriñ Ahmadou Ndiaye ngiraan ci plateau bu am solo bi nga xam ne moom lañ doon amal fii tey ci euh, Daarul Xuddoos yaakaar naa thème bi am na solo am solo goo xam ne doyluñ ci sax waaye waxtu wi dafa mate Euh, ñu leen di santaat bu baax a baax di leen gërëm ci yéen ñi nga xam ne yéen doon bàyyi xel ci thème bi nga xam ne moom lañ tànnoon tey doon waxtaanee Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ak euh, taxawal euh, raay bi nga xam ne moo bàyyeekoo Njaareem ba ci Touba. li nag di tàbbi ci wàccaayu màggaluk 20 Muharram di màggaluk Daaru Xuddoos gi ñu koy fàttaliwaat mbokki taalibe yi mi ngi war a doon alxamis dëppook ñaar fukki fan ci Muharram 1444 ginnaaw gàddaay gi. di war a doon le 18 euh, août euh, fii ci Touba Mbacké ñu koy bàyyiloo xel mbooleem taalibe yëpp ak fu ñu ci mënti nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaanal laat Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassir mu gën fee yàgg te gën a wér ñaanal ko Cheikh Ahmadoul Makhtar euh, Mbacké mi nga xam ne mooy kilifa ak Daaru Xudoos ak mbooleem kilifa yi diine yëpp sant mbooleem équipe technique bi nga xam ne ñoom lañu àndaloon mënuñu leen a lim ak mbooleem chaîne yi nga xam ne ñoo doon diffuser aussi plateau bi ñoo ñu leen di sant baax di leen gërëm ni lañ ko fas and ak yeen ci magal gi ci lepp lo xamne dafi bàyyeekoo ci temps fort reportage interview lepp lo xamne dafa jëm ci magal gi rek dañ leen ko jox ci mbollem plateforme yi nga xamne actuellement yeen ci suivre plateau bi sant leen bu baax a leen wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Groupe Asna Khadim di kër gu yëngu ci mbindum alquranul karim ak xasida ci mbindum rafet te wow ak mol yu taaru moo leen di jaajëfal ci safoo gi ngeen ko safoo si wàllub liggéeyam groupe asna khadim indil na leen mbokk yi lépp luy tax seen wàccaay gën a yëwan ci bagage yu murite loolu lépp luy xeetu accessoire indil na leen ko ay jàllaabi maxana kurus martumi si jaada dal kala, kolu soxna yi marakis zamzam der sang ak mboolem xeeti bagage Amna fi mbokk yi kees yi ngeen mën denc seen kamil alquran wala xasida groupe asna xadim indi na leen tamit ay tableau xasida yu rafet ngir taaral seeni barab ba tey yemb na fi kaamil alquran ci mbind ak mool yu wuute bu ngeen ñëwee fii si groupe asna xadim am na ay dool xasida yu bari lool te wuti ngir nag ngeen mën a jot ci liggéeyub groupe asna xadim fekk lay ñu Touba ñoo ngi si xayra jàkkaarloo kër Serigne Modou Bousso Dieng wala nga woote 76 128 28 28 77 244 19 19 bu dee Dakar Grand Yoff HLM Padois garage Al Azhar Murtada si wetu yi Serigne Fallou Chaybou wala ngeen wootee 77 070 88 43 77 844 17 44 groupe Asna Khadim Dilendi